Burantan tan, burantan tan, burang, burang, burang. burang kantak. yow boobu ba tey maa ngi lay déglu puusoo paasoo yow rek laay déglu. lu xew tam xarit gi. sama bakkan bi jox naa la ko. ray ma cuub ma. soo bëggoon weer bi sax wala jant bi ma ko coppet teg ko sa diggu bi. émotionnel Margarita cokku ah. ko misal joodamet joodamet jom ko jom la wee jaas yi yiri ngaari duuti ngalaji li laay bëgg ci yow man sa sourire damay revivre lo je me sens revivre baa sa soj bi muy tane xam nga rek waaw ah, loolu mooy teggil sa loxo quoi xalaatee foofu yow tamit. le sens su. ma ne naate. Ah. bii yee jën ma ne naate. eh sa loxo waa yow. non maa ngi maa eh, ngi xoolal waaye ma ne nga jóg bu man yéen sa yu yambar yi man almaan laa bunte si le cas bi laay dund. yow yow maa la wecc ma damay dem. ah front front nga koy joxaat nag poitrine. dee ma woowee Adama laa jox bis ni ki tey. rek eh! nga eh! ma ne ma yow. フフフフ。